foo ñu leen di bàyyi xel nee nga ni maire yi di leen subventionné ndax li ñuy contribuer ci ndaw ñi war na noonu jàppale ndaw ñi bu baax jàppale écurie yi nee na xam nga tey jii Modou Lo fii la démarré ci parcelle ba muy dem gisuñu ko woon dégguñu ko woon waaye tey jii PRT la ci biir Parcelles Assainies tey ji responsable yi fi ne ba ci président de la république boo ko goonee Modou Lo bu ko gisee ni ko Modou Lo loolu ñu def ci moom moom lan def ci Boy Niang tey ji daal lii lan doon xaar nee na lii dara gënu koo rafet bare nañu seen combat ba mu jeex tey ji ay teraanga rek lan seq nee na daal ñoom ñëpp kontaan nanu nee na di ñaanal làmb continuer ndaxte bint yi dugg dañ leen doon dañ leen doon woowee ay al toppe tey jii nag ñëpp leen jox cër jërëjëf Burxaan ñaari entraîneur yaa ngi nii kaay leen ma présenté ñëw leen ànd leen yéen ñaar ngeen ñëw fii mbokk yi kii mooy Pape mbay kii mooy Cheikh kii mooy entraîné Modou Lo kii mooy entraîné Boy ñaar tàccu leen leen bu baax ñu baax lan ay grand sportif waa léegi nag décoration bi ñoom ñaar ñooy taxaw nii Boy Niang déchiré et wax leen déchiré déchiré déchiré voilà oh oh oh oh teel foofu oh oh Modou leen lii mooy li nga xamante ni moom la Modou def jox ko ki nga xam ne moo nekkoon adversaire adversaire DJ DJ nee na lii nag parir door la soxna Boy Niang moom soxna Boy Niang moom ay <laughs> Aïcha Abdou Aziz jox na ko jigéen ju baax ju nu jural soxna Cheikh Sadbou jox na ko jigéen ju yiw jigéen ju jàmbaare muy soxna booy ñaa nga xam ni soxna Cheikh Sadbou rek la yaakaar jox na ko jigéen ju nangoo muñ ma bëgg waa parcelle ngeen tàcc loolu bu baax boo jërëjëf nag Modou Lo ndax or ku ko dul takkalee di ko jox nit am nañu mbégte ci yow ñoo ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla defal jàmm lii sport rek la jërëjëf. léegi nag dama bëgg ñu ànd. Digé eh, Digé Mbassa Mbassa. léegi nag dama bëgg yéen ñëpp ñu ànd ñu déglu kàddu yi nga xam ne moom la booy ñaar di yëkkati. di kàddu yoo xamante ne mi ngi jëm ci Modou ak ñi mu àndal ak écurie bi monsieur Yacine gërëm nan la sant nan la ba may jëkk gis Modou Lo yéen ñaar laa gisandoo muy ngay tëgg muy bëre muy daan nga koy bakk tey jii booy ñaa ngi nii bëri na ak Modou Lo daan na booy Niang waaye toujours c'est des frères ñoo bokk ndey ñoo bokk baay li sport la te fii lay yem Boy Niang kaddu gi waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Passer yëpp di den ziar bu baax a baax a baax waaw Père Bécaye ñu ngi sant yàlla bu baax ñu kontaan ci ñëw bi ñu ñëw Passer dañu ñëw Passer parce que dañu war a remplir suñu contrat bi ñu sekk ak Gaston Production ma ci jaar di nuyu suñu papa suñu lépp muy Gaston Meng di ko ñaan suñu borom defal ko tan bu baax a baax ba mu dellu si ñun bi di nuyu Makan moom mi nga xamante ni moo ko teewal di ko bu baax a baax di kontaan bu baax di nuyu Modou sama adversaire maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay frère waaw di la ñaanal jàmm bu baax a baax di la félicité di la wax ni teraanga bi ñu defar yëpp bari na yaatu na waaye ñu ngi ciy kontaan bu baax a baax comme ni ñu ko wax rek laamu moo nu boole suñu combat ba muy soog a taxaw ñu bari dañ jàpp ne sax suñu combat maa yow du neex ñenn ñi ñaari mbër yi dañ rusantee dañ def dañ def lii nga xam bu baax bokk nañu ay liens yoo xamante ni suñu ay nit yoo xam ne ñu ngi jàppale di ànd ak ñun ñu bokkoo bu baax a baax a baax fu ñu mësoon na dajee ci mbëri fu ñuy daje rek ñëpp xam nañ suñu complicité sama waay nga dañuy taxaw waxtaan kafoore mais lii sport la booba tax moo boo xoolee suñu face à face yi ñuy def dama bëggee combat bi neex dama ko sañaxal commencé ko indi ay problème mais sport moo demee noonu <laughs> waaw moo demee noonu ñu ngi lay félicité di la la wax ne am nga mérite bu baax a baax a baax ga noonu la àdduna noonu la boo bëggee yegg fi rek da ngay ñafe ba yegg fi nga yegg champion nga bëre ñoo yow nga daal ñu mais ñu koy sant yàlla bu baax a baax doon doon wuti suñu moo ñu may lu ñu sant na ci yàlla bu baax a baax a baax di leen nuyu di nuyu staff bi nga àndal waa Rock Énergie yëpp di leen ñaanal jàmm bu baax a baax di nuyu waa Pikine fi ma jógee di wax ne Pikine ak passé ennemi nekkul foofu espoir rek moo nekk foofu comme ni may wax rek bu jeexee rek jeex na waaw ñu ngi kontaan bu baax di ñaanal jàmm bu baax a waaw comme ni ñuy wax rek bis bi dafa amoon kuñ ko paree ne mun Amadou Ba ñu koy ñaanal jàmm bu baax Amadou père ñu ngi koy ñaanal jàmm ak gaa yëpp kontaan nañ bu baax a baax incha allah père ñu ngi kontaan bu baax merci beaucoup kontaan nañu mais soxna si moom bu nga jox soxna si tamit kontaan na ci teraanga bi boole nga ci madam waaw loolu kontaan na ji ba incha allah jàmm ci yow incha allah jërëjëf léegi nag léegi xam ngeen lan moo des couronne bi xajal leen ko chaise bi ñëw ana Sissoko Sissoko kaay fii kaay jël mbaxane mi jox la roi des arènes ana ceinture bi mais balaa mbaxan mi ñëw ceinture bi du ñëw ba pare mu doog a toog ñu solol ko mbaxan mi eh indil ma ceinture makan am e Boy Niang Boy Niang kaay fii ana Cissokho mayal le roi yow yaa koy takkal ceinture ah may leen nii leen na leen jàng soxna si puus leen na le booy booy mayel ñii ñu filmer leen ñuy filmer waay may leen photographie ak caméra yi ñu jël ceinture baa ngi nii may ñu tuuti ceinture noonu mbokk yi chaîne bii di chaîne buur bi Modou Gueye mi Modou Gueye Mbaye moo ko joxe ndeysaan moom dañ bëgg Modou rek bëgg laam bëgg Pikine maa ngi nii